يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين sayyidina wa xabibina wa shafiicina wa wasilatina ila rabbina mabuusu rahmatan lil aalamiin wa ala wa saxaabatihi ajmaciin amma bacd asalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen dalal ci seen podcast bi nekk ci rajo bi nga xam ne moom mooy podcast ñu fàttali tamit mbokk yi ne dañuy dispenser ay cours yoo xam ne ne képp koo xam ne bëgg nga ci participer euh, ngir xam sa diine ci mboolem femme ñi nga xam ne lislaam da koy jàngale euh, mën nga ñëw contacter ci cent 77 260 42 70 bu loolu weesoo incha allah tey ñu war a gis ci suñu podcast bi sujet boo xam ne ne sujet d'actualité la te di tax sax ma tànn sujet bi mooy dama doon waxtaan ak sama benn xarit ginnaaw bu ñu jullee ba pare ju doon waxtaan ci li nga xam ne moom mooy bàyyi may buñ ciy waxtaan nag moom vétérinaire la yal ko yàlla sàmm bu baax ma gis ne ne jar na def ci taxaw seetlu bu baax rappelé waat fàttaliwaat jullit yi li nga xam ne mooy àq yi nga xam ne moom mooy àq euh, bàyyi may yi ci lislaam mooy xuquuqul xayawaanaat fil islam mooy lan mooy àq yi nga xam ne ne eh, ñi nga xam ne moom mooy bàyyi may lu ci mel na fas yi lu ci mel ne xar yi lu ci mel ne bëy yi ba sax lu gën a suufee ci wàllum eh, tolluwaay lan mooy seen àq suñu diggante ak ñoom ñu war a xam ne ni incha allah ne suñu borom tabaraka wa taala lu mu jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit jàngale ko te mooy lislaam bii li mu jàngale mooy ne ñooñu dañoo war suñu diggante ak ñoom ay àq yu bari te lépp mën ko ko tënk ci lenn ci rafetal ak ci yërëm ak tamit ci respecter suñu diggante ak ñoom te dëgg la nit nañ def xalifa ci kaw suuf waaye nag nekk xalifa du tere suñu borom tabaraka wa taala tere li nga xam ne moom mooy di xoqatal wala sax di ñaawee li nga xam ne mooy nekkin ak li nga xam ne moom mooy mbooleem mbindeefam yi ndax ñëpp tamit mbindeef rek la leen suñu borom tabaaraka wa taala di xoolee ala kulli xaal waaye nag loolu moo tax nga gis ne rek la fekk suñu borom tabaaraka wa taala di xoolee ñëpp mbindeef donte am na ñoo xam ne ñoo ci gën te muy nit ñi ak malaaka yi ak li ci topp waaye dangay gis ne ñooñu suufeelu leen lan moo tax suufal leen ndax tuddee na leen saar comme lu ci mel ni boo demee ci suratul baqara gis nga nga xam ne da koo tuddee nag nga demeen ci dem ci beneen suura mu tuddee ko anham mooy bàyyi may naka noonu tamit nga dem ci beneen suura mu tuddee ko suratul naxl te mooy eh, yamb yi ci beneen suura aussi nga gis mu tuddee ko suratul namli te mooy eh, korondom yi te mooy eh, melentaan yi rek ci ñenn yi nuñ ko xamee naka noonu tamit nga dem ci beneen suura nga gis mu tuddee fa suratul fiil te moom mooy ñay et cetera et cetera et cetera donc nga gis ne kon rien suñu borom tabaare ko taala jël ñenn ci ñoom tuddee leen ay bopp saar wala tuddee leen ay saar loolu day wan màgg bi nga xam ne moom nañ màgg refekk suñu borom tabaaraka wa taala xoolee leen comme ay mbindeef donc yow mii nga xam ne jullit daf la jël jiital la ci kaw suuf rien que lii rek waroon na tax wala lii rek junj la. boo xam ne ne daf la waroon orienté ci nga xalaat ne ñii am na respect bu rëy boo xam ne ne am naa ko sama diggante ak ñoom doonte suñu borom tabaaraka wa taala dafa ne man maay xalifa man maay xalifaam ci kaw ci kaw suuf mooy ne lépp la ma tàggatal te loolu dinañ après suñu borom tabaaraka wa taala ba tey tamit ci alquran am na ci ñoo xam ne tamit tuddeewu leen ay bopp saar waaye tuddee na leen maam tudd na leen wax na seen wax na seen tur par exemple mun nañ ci jël benn exemple bu ndaw nga xam ne dafa tënk lépp li nga xam ne moom mooy euh, li may wax nii mooy ne la fekk yéen suñu borom tabaraka wa di wax ne inna allaha naka sa borom tabaraka wa taala laa yastaxyi rusul wala complexé wu mooy rusul rek an ci li nga xam ne mooy ba jël li nga xam ne moom mooy exemple masalan yadriba exemple muy fent li xam moom mooy exemple ma baudatan ci li nga xam ne moom mooy euh, yoo mooy xam ngeen yoo bu gën tuuti mooy moustique fama faw xaxa nag lu ko gën a lu ko lu ko lu ko gën a kawe maanaam suñu borom tabaraka wa taala gis fii màgg mu màggal li nga xam ne moom mooy animal yi ndax lan lu gën a tuuti la jël ñun lu ñu jàppee li gën a tuuti te mooy yoo moom la jël nem ne man seen borom tabaraka wa taala awma kersa wala awma euh, lu may seet ci jël wala awma tànn ci jël exemple sax ci yow waxuma laa nag lu ko gën a lu ko gën a kawe ndax nit ñi dañ ko loon jékki dañ loon euh, tooñ yonent bi salallahu alayhi wa sallam nan ko waaw sa alquran bi sa borom bi wala sa alquran bi ah, di wax ay namlak ay baqaraak ay yu kenn xa ay nagak ay yooyu rek lay wax suñu borom nag ne leen lu ko gën a suufee sax mun naa ko jël comme exemple la xam ne foofu da gis ne euh, suñu borom tabaaraka wa taala bëtu mbindeef bu mu leen di xoolee ñun ñëpp xoole ñun ñëpp rek bëtu mbindeef ñu ñuy xoolee moo tax nga gis ne comme moom moom moo leen bind donc sàdd ci ñoom li nga xam ne moom mooy ay exemple loolu du nekk dara ci moom loolu tamit day wane ñun lu ñuy junj ñun moom mooy fu mu leen teg nu mu kawe waaye tamit li fekk mu tàggatal ñu ko mooy comme lu mu wax ci euh, suratul naxli li wax ne wal an'aama xalaqaha lakum mu ne euh, seen borom tabaraka wa moo leen bindal li nga xam ne moom mooy bàyyi mati bàyyi may daf leen bind ngir yéen fii nekk na ci ñoom nag def xon mooy tàngaay c'est-à-dire mën nga cee euh, am ci seen der mën nga cee am yére boo xam ne ne bu seddee mën nga koo sol seddaay bi daal di maanaam mu daal lay réchauffé waaw li ñuy wax daal réchauffé waaye tamit wa manaafi'u minha ta'kuluun mu ne waaye tamit am na bëri loo xam ne ne ay njëriñ yoo xam ne ne mun ngeen koo jëfandikoo eh, ci lekk dund ba nga mun na nekk meew mun na nekk graisse bi mun na nekk yàpp bi ak lu nekk lu nekk lu nekk loo xam ne ne nit ki mun na koo jëfandikoo ci li nga xam ne moom mooy bàyyi may naka noonu tamit walakum fiha jamaalun am na ci yenn yoo xam ne moom yu rafet la nga xam ne ne rafet la ci jamono yi nga xam ne moom ngeen koy war naka noonu tamit jamono yi nga xam ne moom ngeen leen di sàmm ndax sàmmkat xam na loolu sàmmkat bu xoolee li nga xam ne moom mooy jur gi lu ñuy dem di patauger maanaam di dem di lekk di gauche à droite sàmmkat am na bànneex boo xam ne da koy yëg boo xam ne xamul lan la mais day gis ne ne li muy gis day rafet ci moom n'est-ce pas donte ki nga xam ne moom moom euh, loolu du alalam bu ko séenee mun na jàpp ne kii euh, fi mu ne xel bi wérul waaye moom xam na lu muy yëg ndax loolu dafa rafet ci ci xol nga gis li nga xam ne sa moomeel la te mooy ay xar ay bëy ñu nekk di lekk et cetera suñu borom da ciy def benn taar naka noonu tamit nit ki bu waree fas wala bu waree li nga xam ne muy gileem bu ciy dox noonu am na taar boo xam ne da ciy dégagé wu loolu def suñu borom tabaaraka ko taala moom moo ko moo ko def waaye tamit dafa wax lu am solo mu daal di tàgg tàggatal tamit ñi nga xam ne moom mooy bàyyi ma yi ñu nekk ñoo xam ne ne dañ leen di portel seen bagage maanaam dañ leen di yarul seen bagage ci loo xam ne ne yéen boo leen ko doon boo leen ko doon sol wala boo leen ko doon porté boo ko doon yanu dina nekk lu diis ci yéen waaye nag seen borom tabaraka wa taala yërëm bi mu leen yërëm moo tax mu tàggatal leen li nga xam ne moom mooy animal yi ñoom ñu jël maam ñu jël rôle boobu ci yéen c'est-à-dire fas bi wala Euh, giléem bi wala leneen bi c'est pas pour yàlla tàggatuluñu ko ngir ñu leen di toroxal ngir ñu leen di teg loo xam ne ñoom àttanuñu ko waaye li tax mu tàggatal ñu ko moom mooy ngir bagage yi nga xam ne ne dafa diis ci ñun par exemple nga am ay bagage yoo xam ne yow boo ko naroon yanu wallahi dina metti ci lool am na ñoo xam ne doo sax mën a dox waaye suñu borom tabaraka wa taala ko xam na ne yooyu da nga koy soxla te yërëm na la mu daal day tàggatal li nga xam ne moom mooy fas yi li nga xam ne moom mooy euh, gileem yi ak yu ni mel ak mbaam yi n'est-ce pas pour ñu yanul la li nga xam ne moom mooy say bagage yi nga xam ne dañoo diis jëlee ko ci benn bërëb yóbbu ko ci benn bërëb ci loo xam ne yow boo ko yanu boo ko dina metti ci yow lool donc loolu dañ ciy déggee lan ne suñu borom tabaaraka wa taala mbindeef yooyu la xam ne daf ñu ko tàggatal n'est-ce pas daf ñoo ko tàggatal ngir sot mu am yoo xam ne dañ ci dund di ci lekk di ci am ay njëriñ yu bëri am na ci yeneen yoo xam ne ko bind ngir rien ngir suñu taar ñu ko leen di xool di yëg taaru suñu borom tabaaraka wa ci mbindee famille naka noonu tamit am na yoo xam ne daf ñu ko tàggatal ngir lan ngir ñu ñuy yanul suñu bagage ngir ñu ñuy falal yenn yi nga xam ne dafa diis ci ñun waaye tamit euh, ndax léegi bu ñu gisee loolu njëriñ yooyu noonu ak xéewal yu mel noonu la xam ne ne suñu borom tabaraka wa taala daf ñu ko xéewale ndax léegi nag di ñuy jël xéewal yooyu soppi ko li nga xam ne moom mooy coono ndax ki nga xam ne moom xéewal la bu ñu la ko indilee lii ci li ciy gor wala li ciy yëfi gor moom mooy lan mooy nga rafetal ni nga war a nekkee wala ni ngay doxalee ak moom waaye buñ demee ba nga xam ne bàyyi ma yi ci boppam ñoo dem ba gën ñu ci nga xam ne moom mooy jikko xam ne ñoom bu ñu toogoon suñu place maam nekk nit ñoom ñun ñu nekk ay façade yu kenn xamul boo métti ñun liñ leen di def duñ ñu ko def kon day mel ne ñoom sax ñoo dem ba gën ñu mooy comme di wax ne ulaayka kal an'aam mu ne ñii dañoo mel ni comme ay jur balhum adal mu ne waaye ñoom sax ñoo gën a sànku am na ci ñoo xam ne ne suñu borom tabaaraka wa taala loolu la leen wax ne am na ñoo xam ne ne ñoom ñoo yées bàyyi may bàyyi ma yi ngeen leen jàppee lu suufe suufe suufe am na ci nit ñi ñoo xam ne ñoo yées bàyyi ma te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay axaadis yu bëri da cee wax ci lu aju ci ñoom bokk na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu rommee benn waay boo xam ne ne dañoo wala ba mu rommee benn euh, mbaam boo xam ne dañoo ñaas xar kanam bi ngir ràññee lu ko xam naa mooy lu ñuy def naan ñaas kanam beek yooyu noonu rien que pour mën a xam ne euh, def ko daal mandarga ci kanam bi ba mu ko gisee yonentu saa sa mbir bi tiis loolu ci moom mu daal di wax ne laana allahu allazina wasamahu mu ne rëbbug yàlla yàlla na wàcc ci nga ki nga xam ne ne moo ko màndargal am kii mandargal ki nga xam ne moom mooy ximaar boobu noonu yàlla na yàlla wàcc ci kooku te loolu amul benn sikk ne loolu moom moo koy dal ne rëbb yàlla dina dal ci kaw bu fekkee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dabaatalul ko ci tuub ci tuubal ko kon loolu tamit moo tax nga gis sax mu wax ci beneen xadis ne am na ci ne euh, dañuy tere li nga xam ne moom mooy lan di màndargal li nga xam ne moom mooy bàyyi may ci seen kanam maanaam jël kanam di ci ñaas ñaas dafa xaram ñaas ci kanam yooyu noonu dafa xaram moo tax nga gis yoonu saa sam tere ko waaye tamit ci mettital li nga xam ne moom mooy euh, bàyyi may jox na ci ay exemple yu bëri yoo xam ne yu siiw la par exemple joxe na ci exemple boo xam ne ñu bëri xam nañ ko wala mus nañ ko dégg mooy jigéen bi nga xam ne ne euh, ay benn kii benn mus bu ndaw da ko lekkal benn lekk ba mu ko ba mu ko ba mu ko yëgee mu daal di jël muus bi tëj ko ci benn néeg bàyyi ko yoon sa sa wax ne bàyyi ko mu dem jox ko mu lekk waaye itam bàyyi ko mu dem lekk ci nga xam ne moom mooy yiy daw ci kaw suuf si ngir mën a lekk waaye ci loolu ci sabab boobu moo tax suñu boroom tabaraka wa taala mbugal jigéen boobu noonu la xam ne dafa jàppoon muus bi tëj ko ci benn néeg rien pour mu bañ a ba kër muy dee suñu boroom tabaraka wa taala ci sabab boobu jël ko moom tamit yóbbu ko safara di ko mbugal naka noonu tamit nañ riwaaye keneen koo xam ne moom tamit contraire bi la def nga xam ne moom lan la def comme yonent bi sallam dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nett na xadis boo xam ne ne dafa wax ne waa ji dafa nekk ci benn yoon ba mu nekkee ci yoon bi ba ci yàgg rek euh, maam di dox di dem mu daal di mar mar lool ci saa si mu gis benn teen mu daal di wàcc ci teen bi bu mu wàccee ci teen bi mu daal di naan ba doyal mu daal di génn ba mu génnee mu gis xaj boo xam ne ne mu ngi yar xat maam mu ngi euh, dox mais boo xoolee nga xam ne kii mu génnee làmmiñ bi euh, gémmiñ bi di fuur mar lool mu xam ne ne kii li ma daloon ci mar moo ko dal mu dal di wàccaat ci li nga xam ne moom mooy teen bi jël li nga xam ne moom mooy dàllam def ci at ndox ba mu fees génn fexe ba euh, xaj bi def ko ci gémmiñu xaj bi xaj bi naan xaj bi ba mu naanee ba nga xam ne leer nañu kon lim euh, maram bi wàññeeku na mu ne fa chakarallahu lahu suñu borom tabaraka wa taala daal di koy sant fa afara lahu mu daal di koy jéggal li nga xam ne moom mooy bàkkaaram bi kon xoolal kee ku jigéen ki moom lan la def dafa jàpp benn muus donte muus bi moo ko tooñ waaye dafa jàpp benn muus tëj ko bàyyi ko foofu ba mu dem ba ba muus bi dee suñu borom tabaraka wa taala ci sabab boobu yóbbu ko safara kii nag contraire bi nag dafa wàcc ci teen rien que pour euh, naan ndal maanaam may ndox li nga xam ne moom mooy xet ci sabab boobu suñu borom tabaraka wa taala jéggal ko bay ko gërëm maam jéggal ko ba pare euh, gërëm ko dugal ko aljana kon nga gis ne ne foofu loolu lan lañ ciy déggee ne mettital li nga xam ne moom may bàyyi ma yi ak di leen toroxal ak di leen dóor dóor yoo xam ne tegoo ko fenn yooyu nan leer na ne keroog yowmal xiyaam dina nekk loo xam ne ne sa kaw lay lay retourné wu nombre de dóor yi ñu ko dóor dinañ la ko dóor naka noonu tamit safara jahannama boo moytu di nga fa di nga fa dugg moo tax yonent bi salallaahu alayhi wa sallam mësa romb benn mbaam boo xam ne ne daanaka biir bi dafa dem ba loof dem ba nga xam ne ne eh, donc koy xool xam ne kii yooyu na lool mënatul ba pare joxuñ ko mu lekk mu daal di wax ne ragal leen yàlla ci ñi nga xam ne moom mooy bàyyi ma yi bàyyi ma yii na ngeen ragal yàlla ci ñoom nangeen fexe ba rafetal boo leen di boo leen koy war na ngeen ko rafetal naka noonu tamit boo leen di lekk na ngeen na ngeen ko rafetal li ngeen di lekkee ci moom maanaam boo leen demee bay lekk ba ci bàyyi ma yi dem na lekk bi rafet xar yi bëy yi nag yi yooyu ba lekk baadoo la lekk jël sànni fee nangam nag déedéet na lekk bi rafet naka noonu tamit boo leen koy war na warin bi tamit rafet mooy na ngeen leen di dudal na ngeen leen di defal lépp loo xam ne ne euh, lu baax la ci ñoom ngeen leen di toppatoo mais pas bàyyi leen noonu ñuy yooy euh, comme parfois lu ñuy def nga xam ne ne na ñoo xam ne ñuy bay euh, gerte ba mu ba baax ak ngooñ bi génn nga xam ne leen ni ngooñ bi pour kii bi la li nga ko wax sax fas bi walla nag bi Euh, li nga xam ne moom mooy euh, gerte bi nag pour nit ki la waaye nit ñi lan la ñuy def dañuy jël ngooñ bi yëpp dem jaay jël ngooñ bi yëpp dem jaay fas bi nag nga xam ne moom moo participé woon ci liggéey bi lan lay def ah mu mu xooli moom lu muy def mu dem di fori for fii dem for fee dem kii maanaam desit yi nga xam ne moo des ci tool bi ci loolu lay for alors que suñu borom tabaaraka wa taala comme yéen ñaar yéen a ci ànd te moom sax moo def li ëpp ci liggéey bi mooy mooy mooy mooy mooy Euh, fas bi wala mu nekk nag bi ñoom ñoo ëpp lu ñuy def ci liggéey bi ci tool bi par exemple bu fekkee gerte la doom bi yow yow moom la suñu borom sedd bu fekkee ñax bi nag suñu borom tabaaraka wa fas bi la ko sédd yow nag jël sa pal sa paar te mooy gerte bi nga doll ci nag paaru fas bi te mooy ngooñ bi dem jaayi ngir am si sa xaalis nga yaakaar ne moo tax moo taxit mbay bi du mën a du mën a barkeel du mën a barkeel ndax tooñ bi moo bari tooñ bi bu bëree barke bi day daal di néew tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit ci xadis bi mu wax ne maa ngi leen di tere di leen moytandiku loo ngeen jàppee li nga xam ne moom mooy fas yi seen ginnaaw yi wala giléem yi ngeen jàppee leen comme ay canapé c'est-à-dire comme tooguwaay nga xam ne nit kii day dawal dawal ba fu mu fu ko neex gis waayam ngeen toog nga toog ci kawam ah, di waxtaan di def li ngay kii et cetera yoon saa loolu da koo tere imagine nag kon koo xam ne moom da ko yan lu lu diis lu ne mu dem yan ko ko comme fas bi comme fii nuñ ko xamee jàpp fas yan koo yana yana yan ba xam ne ne da ngay gis fas buy dox sax day soox sonn lool nga xam ne du sax mën a avancer te kenn du ci mën a dugg nga yor sa yat waxuma la déjà rek lu mu yan lu mu diisee loolu rek doy na ko coono nga jël yar di ko dóor ci ay awraam subhanallah subhanallah imaginer rek ñu maam ñu defoon changement de rôle bi wax ma sax yow nga nekk fas moom yow rek nga nekk nit sa beneen moroom mu nit tiim la di jël xiir di ko dóor say awra walla rek yow mii koy def xëyal rek un bon jour nga jël sa xiir boobu ngay dóor sa fas bi ci ay awraam essayé ko rek nga jël xiir boobu noonu dóor ko say awra nga xool sensation boobu ngay am métit boobu ngay am est-ce que yéene nga ko ko parce que ñoom tamit dañoo nekk ñoo xam ne dañuy yëkk nekkuñ ñoo xam ne ne ay objet nañ comme sa portable bii la xam ne mën nga ko sànni et cetera te nga jàpp ne yëgul dara waaye ñooñu dañoo am ay yëg-yëg yu ñu am subhanallah yàlla ñu yàlla sàmm ci ci ci ci ci bile balaa moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax ne di tax nag ñu tàggatal leen ko li tax ñu tàggatal leen ko nekkul pour loolu waaye li tax ñu tàggatal leen ko mooy ngir ñu jëlal leen seen bagage yi jëlal leen jëlal leen ko ci benn bërëb yóbbul leen ko ci beneen bërëb ndax lan ndax bu fekkoon bë mbir yooyu daf leen daf maam yéen yéen a ko naroon ñan day daal di diis ci yéen comme la loolu la suñu borom tabaaraka wa taala wax ci alxuraan mooy bi ñu ja aaya bi ñu bu ñu weesu rek ne li tax ma dindal leen li nga xam ne moom mooy bàyyi ma yi moom mooy ngir ñu yanul leen seeni bagages yi jëlal leen ko ci benn bërëb yóbbul leen ko ci beneen bërëb boo xam ne ne yéen boo leen doon yanu bagages yooyu day daal di metti ci ci yéen lool waaye binduñ leen comme li ma ko waxee sànq ngir di leen toroxal ak ngir di am dominance ci ñoom ak et cetera da sax koo xam ne da koy yanu def ko nit ñi di wax ak moom mu naan sama yoon nekk ci maa koy dundal te boo xoolee dalay leer na ne kii wallahi dundul ndax mu ngi te la lay li lisaanu xaalam lu muy wax moom mooy lan mooy dangaa nekk nit rek yàlla yàllaa ma tàggat rek mais wallahi gënoo ma am ñu bëri ñoo xam ne li ñuy wax si ñi leen moom mooy gënoo ma yàllaa ma tàggat rek mooy wéy ay ndëgam waaye yàlla xam na ne gënoo ma ndax lan ndax comportement bu bon bi nga xam ne moom lañu am moo tax loolu état bi war na see jukk war nañ am ay brigade comme ni ma ko waxee démb war nañu am ay brigade animalier pas yoo xam ne dañ ko rattaché fii mais yoo xam ne ne démembrement lay nekk carrément ci wàllum armée ndax xam ne ne day nekk brigade animalier képp koo xam ne gis nañ ne respecté woo code yi nga xam ne moom lañ teg ngir fas yi ngir euh, ku lu mu mënti doon daal loo xam ne dañ koy war wala daal loo xam ne animal ak seen carnet yi dañ ko war di respecté fexe ba nga xam ne ne gars yi seen carnet yi seen yi ñu koy xool est-ce que ñoo ngi def visite est-ce que ñoo ngi ñoo ngi kii ku ñu gis fasam bi yooy wala yu demee noonu ñu nangu ci yow fas bi wala ku ñu gis respecté woo sa carnet ñu nangu ci yow. fas bi ku ñu gis nga dóor ko foo xam ne waroo ko foo waroo ko faa dóor te ndax loolu dañ koy def ci kay ci ay kanamu policier ak yu kenn xamul ñooñu ñoo leen war a jàpp tëj leen wala sax ñu nangu fas bi ci ñoom dénkaane ko feneen jar na sax ñu yóbbu ko ci euh, xar yee mooy euh, kiiwu armée yi fi ñuy nekk yóbbu leen foofu ñu dundal leen et cetera waaye bàyyi leen fii mu mel na comme si léegi kenn faaleetu leen kenn faaleetu leen ñu jàpp nag jàpp leen di leen utiliser comme lu ñu neexee ba pare ba pare boole ci ak ay dóor yoo xam ne ne teguñ ko fenn xamul am na yoo xam ne ne bu nekkoon yenn dëkk yi tëj nañ la bu yàgg jël fas yan ko lu dul jeex surtout xaal nga xam ne jamono ji xaal yan ko xaal lu dul jeex mu doxal doxal doxa dox ba sonn nga xam da ngay xool fas bi dangay ngay koy yërëm dañ ciy gis koo xam ne ne subhanallah loo xam ne man ci boppam maa ko fekkee waa ji jàpp fas bi di dóor fas bi daf fas bi dafa mujj jékki-jékki fakkas talu gaañu subhanallah di nàcc waa ji teg ci di dóor pour mu avancer subhanallah imaginel nit maanaam imaginel seen boobu lu mu ñaawee yaa ngi yan yaa ngi koy yan lu ne muy dox ci ci tali bi fakastalu gaañu deret bi di génn nga jàpp di dóor pour mu avancer subhanallah yàlla nañu yàlla sàmm yàlla yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla sàmm yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na bis boo xam ne ne ci benn xare am na bis boo xam ne ci ci benn xare ànd na li nga xam ne moom mooy saxaaba yi mu jékki-jékki mu gis benn picc boo xam ne daf leen jàpp da leen topp da leen topp da leen topp jékki-jékki yonent bi sallallahu alayhi wa xool ko daal di xam lu mu bëgg mu daal di ñëw ne man faja hazihi bi wa bi waladiha mu ne kan ci yéen kan moo njàkkaloo maanaam moo tristeloo moo tooñ bile picc ci ay doomam walla kan moo jël tagg tàggam raddu waladaha ilayhi mu ne leen delloo leen piccam te imagine armée la woon yonent bi sallallahu ci benn picc mu taxawloo armée bi taxawloo armée bi parce que lan di seet kan moo jël tàggu maam picc maam euh, nenu nenu kii bi nenu nenu nenu nenu nenu picc bi kan moo ko jël bañ ko gisee mu ne acca delloo leen ko ay nenam maanaam delloo leen ko ay ay doomam nga xool xoolal ixtiraam boobu noonu ak euh, maanaam lewet boobu noonu ak yërmande boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon ci sax euh, picc boo xam ne ne tàggam nañ jël muy daw di di wër mu gis ko yërëm ko ne gars yi delloo leen ko piccam armée lëmb war a dem mu taxawloo leen rien que pour seet benn ay ay ay doomu ay ay ay nen nga gis loolu lam moo tax ndax lan ndax yërmande bu mu am ci ñëw ak tamit xam seen gëdd ci suñu borom tabaraka wa taala naka noonu tamit ngeen ko xamee mu siiw giléem bi nga xam boo ñëwoon ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah, sëgg ngëxal ah, xaw ma sax ba xam ngëxal nañuy wax en tout cas def daal ay siinam yonent bi sallallahu alayhi wasallam mer ne ana kan moom moom kii mu ne ko mu ne ko man mu ne ko dafa ñëwoon ci man di ma la kalaame nee na doo ko jox doo ko jox mu lekk ba pare Euh, di ko yar lu ne tey jii nga bëgg ko rendi nga wala nga bëgg ko loj bu fekkee gileem loj nañuy wax nga bugg ko loj daal di wax ci moom lu muy wax ci moom kon loolu nga gis ne ne ay mbir la yoo xam ne su suñu borom tabaaraka ko taala noonu la bëggee mbir yi doxe waaye bindu ko bindu leen ngir ñu leen di toroxal bindu leen ngir ñu leen di ñàkke teggin bindu leen ngir ñu leen di jëfandikoo comme nu ñu neexee sans sax am benn régle boo xam ne dañ ko ci bàyyi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne ba ci ci rey ba ci ci rey boo demee sax ba war a rey benn animal dafa wax ne inna allaha katabal ihsaana ala kulli shay'in mu ne suñu borom tabaraka wa taala dafa dogal dafa digle rafetal ci bépp mbir bépp mbir lu rafet lu ci gën a rafet rek la digle mu ne fa iza xataltum bu fekkee da ngeen di rey fa axsinu na ngeen di rafetal al xitala li nga xam ne mooy rey ji bu fekkee da ngay da ngay rey sa moroom maanaam da ngay xeexat ko xam ne wala yooyu ngeen nekk ci guerre boo waree dem ba rey ba mënta ñàkk rey na rey bi rafet ba dagg fii moo tax loolu dafa xaraam ci lislaam fees ay fees ak ay dagg bakken yu kenn xamul dagg nopp yooyu dafa xaraam ci lislaam n'est-ce pas muy yéef ku mu mënti dafa xaraam ci lislaam mu daal ci tekk ba isa bu fekkee da ngeen di rendi nag mooy animal yeeg yooyu noonu fa axsinu na ngeen rafet na ngeen rafetal zabaxa li nga xam ne moom mooy rend bi ndax lan wal yu wal yu xidda na na beesal mooy na daas axadu axadukum li nga xam ne kenn képp ci yéen chafratahu li nga xam ne moom mooy paakam wal yu te nay na woyofal na gaawal zabixatahu li nga xam ne moom mooy rendem moom képp koo xam ne da ngay dem ba rendi sax na nga daas paaka bi bu baax maanaam da nga ko ñawal bu baax ba pare booy rendi na nga gaawal rendi mi ndax souffrance bi mun a gaawal nga gaaw a dañ noo ko noonu tamit moo tax nga gis saxaaba yi ñoom loolu dañ koo déggoon seen diggante ak euh, xayawaanaat yi c'est-à-dire anim animaux yi comme li ci mel ne Seydina Abu Hurayra Seydina Abu Hurayra tuddul Seydina Abu Hurayra waaye li tax ñu koy wooyee Abu Hurayra ndax Abu Hurayra moom mooy bàyyi muus muus bu ndaw bi bàyyi muus bu ndaw bi c'est parce que dafa yoroon benn muus bu ndaw boo xam ne ne da koo fonkoon lool donc jox meew di ànd ak moom lu waaw di ko toppatoo yéen saa yéen saa sam nag ba mu ko gisee ne une fu mu tourné rek gis Seydina Abu Hurayra mu ànd ak muus bi mu ne ko xanaa yow yaay bàyyi muus bu ndaw bi foofu nag la ko gars yi di commencé tuddee Abu Hurayra Abu Hurayra donc loolu moo tax kon loolu da ngay gis yërmande bi nga xam ne Abu Hurayra rek saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la amoon ci anima ani ani animal yi xoolal imaam Shafi'i rahimahullah moom xoolal lu mu defoon maanaam dafa mës a am benn mantu dañ ko mësoon may benn mantu bu bees tàkk rafet lool ba mu ba mu ko solee mu jékki-jékki toog di jàpp ba muy jàpp ba mu jàppee ba pare fekk mu ngi sol manto bi manto bi day wàcc n'est-ce comme manto lu muy mel boo toogee da gis ne day wàcc nest pa pas comme robe de mariée yi lu muy wàccee noonu di direeku boo toogee manto bi tamit boo toogee day direeku muy direeku noonu mu toog di jàpp ba muy jàpp jàpp ba pare mu gert gis ne nakate moment boobu noonu am na benn muus boo xam ne ne comme xam nañ muus yi lu mu lu ñu féexee muus bi dafa jékki-jékki ñëw ba ci manto bi tëdd fa tëdd ci bi ci maam tëdd ci kaw manto bi di nelaw commencé di nelaw nga yaakaar ne bu nekkoon ñun lan la ñuy def am na ci ñoo xam ne bu nekkoon ñun dañuy bule muus bi maanaam <laughs> dañ koy bule waaw ne ko waaye yow sama yére bi mooy wax muy tëdd naan nangam nangam waaye si déedéet imam Shafi moom deful lool imam Shafi lan la def mbubb bi mooy eh, kii bi manto bi simmi nank ko teg kon te manto bu bees tàq la mu teg ko noonu dem yoonam bàyyi fa manto ba ak ak muus ba muus bi moom bis bu yeewoo saa yu saa yu yeewoo moom mun na dem manto bi nag amul problème la xam ne loolu da koo jaral imam Shafi'i yi loolu da koo jaral sax ñàkk manto ngir lan ngir respecté li nga xam ne mooy ak benn benn muus as muus waaye nag nga gis saalixuuna yi tamit niñ ci insister ci wàllu boobu ne képp koo xam ne da ngaa jàpp ne yaa gën xaj c'est parce que xaj la gën et cetera ndax ñoom amuñu bàkkaar te yow ci bàkkaar nga dëkk naka noonu tamit dégg ngeen xista bi nga xam ne ne waa ji dafa jékki-jékki romb benn benn animal wala benn insecte insecte nañ wax dafa romb benn insecte ba mu romb benn insecte insect bi ñaaw lool mu ne mu ne lii de man xaw ma njëriñam loolu la wax maanaam lii daal xaw ma njëriñam xaw ma lan moo tax yàlla bind ko ah rek dem ba mu demee yàlla pour wan ko njëriñ bi njëriñu insect boobu mu dogal ci moom ab góom bu mu amee góom bi fu nekk mu dem fa fu nekk mu dem fa munul fexe ba góom bi faju nes ce ci la jékki-jékki am benn médecin ne ko daal insect sàngam boo ko amee boo ko jëlee ba lakk ko yaakaar naa da koo gént waaw du ko gént mu gént ñu ne ko insect boobu nga doon wax lan muy njëriñam boo ko jëlee nga lakk ko nga def ko ci plaie bi dina wér bu mu xëyee mu nekk di wër di wër di wër di wër ba gis insecte bi ba mu ko gisee mu def ko comme ni nga ko waxee lakk ko rey ko lakk ko mu ba mu kii jël kii bi def ko ci góom bi góom bi daal di wér nga xam ne kooku xoolal rek kooku rien ko pour wan ko ne amul dara loo xam ne bind naa ko lu dul ne am na njëriñ boo tax wala benn xikma boo tax boo boo xam ne ne moo tax ma def ko fi moo tax ma def ngi suñu borom tabaaraka wa taala dogal ci moom loolu naka noonu tamit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag am na ay animal yoo xam ne moom dafa digle ñu rey leen fi ñu leen gis soit mu nekk ci masjidul xaraam wala mu nekk feneen maanaam soit nga nekk koo xam ne ne da ngay aj wala nga nekk koo xam ne ne ajoo màkk foo leen gisee rek dañ leen war a rey bu fekkee dañ laa dañ laa song comme li su mel ne alxidaatu moom mooy euh, céeli n'est-ce pas céeli fum la fum la songee rek moom waroo taxaw rek naan noonu neen bu ñëw foofu danga war a replier dañ leen war a dañ leen war a rey naka noonu tamit lu <coughs> euh, ñuy wooyee horaabu euh, te moom mooy euh, te moom mooy baaxoñ mooy ay horaabu moom mooy baaxoñ mooy bu ñuul boobu noonu ngeen di gis mu am kii bu kii bu kii bu weex bi naka noonu tamit alfaratu alfaratu moom mooy kaña kañu tamit foo ko gisee moo tax bii moom yaakaar naa gars yi moom sawar nañ ci lool bii moom yaakaar naa <laughs> bokk na ci li ñuy ëpp li ëpp lu ñuy jëfe mooy rey kaña <laughs> yàlla nañu yàlla sàmm naka noonu tamit xaj boo xam ne ne euh, dafa am dafa amee kii dafa amee rage loolu tamit moom yontu saa sam dafa digle ñu ñu rey ko ndaxte kooku ku mat après nit ki mënuñ ko dootuñ ko mënati faj naka noonu tamit li nga xam moom mooy euh, axarab moom axarab moom mooy euh, scorpion muy jiit jiit tamit foo ko gisee rek na nga ko war a rey naka noonu tamit euh, alxiya alxiyatu euh, alxiyatu moom mooy kii moom mooy jaan jaan tamit foo ko gisee même bu fekkee da ngay julli sax yii mën nga ko rey moom mooy scorpion ak jaan loolu moom borom xam-xam borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne foo ko gisee ci biir julli bi noonu boo amee yat dóoral nest léegi nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag loolu moom mooy ñi nga xam ne ne dafa tere dafa digle ñu rey leen comme li ci mel ne xaj boo xam ne dafa noonu tamit kaña naka noonu tamit euh, li nga xam ne moom mooy euh, comme aigle yi bu fekkee dañoo ñëw di la song bien sûr nañuy nañu nañuy wax comme euh, ceeli yi waaw ceeli yi ak baaxooñ yeeg ak yu demee noonu donc yooyu tamit ak jaan yi yooyu fuñ la songee rek na nga war a da leen war a rey naka noonu tamit euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na ay yoo xam ne spécifiquement daf la tere daf la tere yow jullit bi ngir nga laal leen ngir nga rey leen bokk na ci li ñuy wooye nam namlatu moom mooy kii yi euh, moom mooy xorandoom yi n'est-ce bu fekkee benn moo la matt boo ko reyee amul problème mais nag li bon moom mooy dem fekk terrier maanaam ñoom fu ñuy nekk nga dem lakk lépp loolu moom dafa xaram naka noonu tamit euh, al naxlatu li nga xam ne moom mooy euh, yamb tamit yamb bu la benn bu la màttee mun nga rey benn bi waaye nag dem fekk fu yamb yi di nekk nga fas yéene koo taal déedéet loolu loolu loolu dafa loolu dafa xaram naka noonu tamit al hudhud hudhud moom ak lu mu mun ci demee moom heureusement du màtte waaye dafa dafa dafa dafa dañ koy tere tamit ngir nga rey ko da mooy musaa njugur te alquran tudd ko naka noonu tamit ah, as euh, as sudaru as sudaru genre picc la boo xam ne ne bu ñu xamoon la ci arab yi nga xam day day gris day xaw a tuuti nii mais day gris ba pare am ay ay taches yu yu yu yu kii yu ñuul n'est-ce pas pie pie griché nañ koy wooye ci ci ci français kon loolu ñooñu dafa nekk ñoo xam ne ne dafa xaraat ngir ñu rey leen n'est-ce pas comme namlatu comme euh, mooy mooy mooy xorondom naka noonu tamit yamb naka noonu tamit Moussa Ndiogur ak yu demee noonu ak tamit yi nga xam ne moom mooy euh, picc bi ñuy wax di di suraadu donc yooyu moom yi nga xam ne ne yii dañ ko tere ngir ñu rey leen yii dañoo tere tamit ngir ñu ngir ñu kii leen ngir ñu euh, ñii dañoo digle ngir ñu rey leen yee dañoo tere ngir ñu ngir ñu rey leen donc kon lool boo ko déggee da ngay xam ne ne lii lool lu am solo la ci wàllum lislaam ndax noonu tamit yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ci li nga xam ne ne ci képp koo xam ne ne da ngay dundal euh, li nga xam ne moom mooy bàyyi ma ndax loolu nit mën na laajte comme ni ko saxaaba yi laajte woon ndax est-ce que am na ci li nga xam ne moom mooy euh, bàyyi ma yi ce que am nañ ci ñoom li nga xam ne moom mooy pay yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di wax ne fii kullu zaatil kabadin ratbatin ajurun mu ne képp koo xam ne ne lépp loo xam ne ne dafa am rees buy tooy loolu am na ci pay boo xam ne ne suñu borom tabaaraka wa taala daf ci fay mooy de bu fekkee da nga leen jël di leen dundal ak lu ñu mun ti doon mbaam ak lu mu munti doon rien que rek nga dundal leen rek maanaam nga jox leen ñuy lekk rek loolu dafa am pay bu rëy boo xam ne suñu borom tabaaraka wa taala daf la koy fay donte bu fekkee comme exemple mbaam xuux yeeg yooyu noonu doo ko lekk mais dundal leen loolu lu dagal la te am na fay boo xam ne ne suñu borom tabaaraka wa taala daf ci def ciy paye kon loolu lu jar a bàyyi xel la ci bunt bi ñu bàyyaat xel vraiment ci ak li nga xam moom mooy bàyyi may yi euh, xayawaanaat yi ñu bàyyi ci xel bu baax jéem ci ut sax ay solution loolu jar na di ci di ci wax di ci sonn kon képp koo xam ne ne déglu nga suñu wax ji euh, bëgg nañ mu gën a jottale na nga fexe ba loo mën pour partager ko nga partager ko ndaxte mbir la boo xam ne xëy na ñun suñu jamono ndeysaan dañ koy xeeb lool waaye nag kenn ku ci nekk ci sa jamono problème bu nekk dinañ la laaj lan nga defoon pour au moins régler problème boobu noonu ñun nag lii nañ ci mën mooy wax n'est-ce pas ndax nekkuñu ay autorité li ñu mën moom mooy wax kon dañuy leen di jéem a waxal yéen tamit jéem leen leen waxal ci lan ci partager tamit euh, vidéo bii nii incha allah kon ñu def noonu ba beneen yoon in uridu ila al islaaha mastataxtu wa ma tawfiqi illa billah subhana rabbika rabbil a amma yasifun wa salaamun ala al walhamdulillahi rabbil alamin يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليماً